vraiment que Sally de passage vraiment mu nekk jigéen bu jàmbaar mhm. jigéen bu jàmbaar jàppale ma jàppale ma lool ci wàllum jàng bi ma ci feebar bi bu ma taxaw ma vraiment noonu ma gis ñu annoncé ma comme temps Covid bi la ñu envoyé message ma lire message gis ni voilà jàll naa fi yooyu noonu <laughs> ma seen ko ci kawam mhm. loolu <laughs> vraiment émission bi jàpp ma rek ma seen kaw ci kanam noonu voilà mu nekk dégg naa di ma upp affaire yooyu commencé tuddal yàlla noonu ak émotion bi mais après nag noonu ma commencé ma jóg affaire yooyu noonu comme dañu tegoon ni voilà yaa ma gën a xam émotion bi laak yooyu mhm. après ñu toog quelque temps ba ñu orienté ma université et tout mhm. ma commencé dem écrire et tout commencé mes cours ba léegi ya. demagoo kër docteur non boobu mhm. boobu demaguma kër docteur parce que maa ngi naan stress bi la dama voilà comme dama bëggoon bi dama waaw dama defoon ci jàng bi mhm. voilà ma donc émotion bi la mooy xuusandi ci jàng bi jàng ba def sama premier semestre et tout tag nag laa mu ne ma voilà bëgg jàngi un jour rek eh, xëy taxaw ci porte bi rek bëti ne ma tey moom carrément fan yii yëpp dëgg daan ci riche di di di di làmbatu dem maire bi chaque jour mu xool ma daf may seetlu ma dem commandé lu samay verre yëpp teg mais maire bi des fois daf may bàyyi su may sol yére ma day soxna day soxna est-ce que yaa ngi gis gisatoo de guddi na et tout ma ne ko non non maa ngi gis yëpp di bañ bañ ba un ma xëy rek taxaw ci porte bi bëgg a jàngi voilà gisatuma non non ma xam ne tey moom su ma vala ma su ma forcé rek voilà catastrophe mën naa parce que dafa dem ba su ma taxee ci tëli bi pour gis oto yi ni tey jekk ba si yàgg doxee ma ginnaaw xam man kii dafa bëgg a jéggi te ñemewul wala gisul voilà muy doxee ma ginnaaw rek jàpp sama loxo dem ma taxaw nag ne tey voilà ma taxaw na am luma ma metti ma jooy parce que koo xam ne na tey ba am bagam voilà nga ñu orienté la nga am te ni jàng bi mën nga ci avancé ba dimbali taral say waaju parce que dafa gaañu mooy préparé sama bac juste ci la gaañu mu nekk lu metti même ma forcé forcé forcé ma taxaw ci bunt bi xool gauche xool droit xam ni tey jii daal baaxul bët bi daal nar na ma war ma delu ci ay ne ma yow mujjoo dem de man ko non non sama bopp day metti yeb bugguma ko wax ni man gisatuma carrément ma lambaan naa ko dugg tëdd di joy di joy mais bobu comme ma ngi amoon reste vigile me bàyyi be ñepp tëdd ñu tëddee ma jël sama bi ak sama fay di bind sama trajet fi ma jaar di mu bëggoon defal par en rêve bi ma amone parce que j'étais sportive sama tar ma sha allah fa réussir Paske zite toujou palmi le meyer. Vwala, mou bole kage espor bi manchal. Ni mwen di apale. Men mwen deme beti bir, vwala, hamnen ak ni djok jonna. Aniko yaye soube, inchal avon. Deme beg, koum jouton nan nye avaye bouts sosyal. Deme beg sa mwen hale espiritu desi, mwen gen mwen deme opetare. xool mu ne ma lan la ma ni ko non non non parce que méttitu bopp bi mu ngi continuer mu ne mais yow est ce que méttitu bopp kese la parce que damay gis des fois da ngay seet dara mu nekk sa karam nga koy làmb ma ni ko ah non non xëy na néeg bi moo lëndëm ak yooyu rek mais ça va mais ñu xëy jël sama resto xaalis ma taxaw voilà j'avais par les moyen ma taxaw ñu ànd mu gunge ma ba ci arrêt bus bi boobu maa ngi war a dem hôpital Dantec j'avais pas les moyens pour jël taxi ni rien te bëgguma mu xam ne voilà je souffrais voilà mu gunge ma ba ci terminus bi ma taxaw mu ni ma dugg mu toog noonu maa ngi toog ci première kii bi noonu mu ni ma léegi yow soo demee nooy waa ci affaire yooyu noonu ma ne ko noon non am na sama benn xarit bu ma woo bu nekk université dina génn nee na dagal dama tikkee sax yëpp pour rassurer ko pour mu mën a dellu tamit mu dugal moo tax wàññeeku dem kër ga ma toog ndeysaan man xam naa ni risqué naa ndax su ma wàccee tey oto bi mën naa wàcc bu dee wàccee ñu ma wàccee baaxu la yooyu tout voilà ma wati voilà grâce du Seigneur yalla mm. may ma mm-hmm. ba ma egg médecin ba mm. voilà premièrement ma egg médecin bi jox ma rendez-vous bu sore deux mois ngay ñëw pour ma gis mm-hmm. ma taxaw hôpital ma joy joy joy parce que man xamna naa yegg ni yéeg yegg ni lu lu lu grave mo nek sama yaram parce que lima done yegg c'est c' c'était énorme c'était énorme vision baangi ngi dem méttitu bob bi crise d'épilepsie yépp mo ngi ci man mu metti lol lol lol médecin bi jox ma rendez-vous deux mois ma xamné non non non tey jii nii ma taxaw sama xarit bi ñew wax mu ko ni ma yow de médecin bi est ce que ding ko mën xaar deux mois la la jox fi ba avril mu ne ko deux mois ba tax a jooy sëgg xataraay bu ma non non non bul jooy léegi tu sais comment on va faire nañu retourné ñu dem hôpital Fann suñu demee hôpital Fann ñu dem ci Albert Royer bi ñu kéem a laaj foofu des renseignements si bu dee yow sa kaan ni mu urgent bi soo demee tey dinañ la mën a jël tey tey tey yàlla def ma dem laajte ñu ni ma voilà fii am na ophtalmo am na fii léegi ñu dem ñu dugg voilà. ma tase que que c'était docteur docteur gay vraiment ñu mon xol sama bi xol xol xol xol premièrement mu may won lettre gisuma baax des fois ma des fois ma voilà après mu duggal ma ci biir deuxième fois xol jël machine tech xol xol xol mais bu mu xolé exactement du carrément mais bu fekk que mu ci cerveau voilà mu jox ma garab et tout dama léegi da nga koy jël en attendant mais yow obligatoirement en urgence da nga war a def IRM foofu tamit mu metti loolu ndax IRM bi instant boobu mu ngi war a nekk cent cinq ci ko xam ni paasu taxi sax cent cinq mille IRM bi IRM mhm. boobu jamono jooju cent cinq mille ma ñëw mère xool ba ma xool ko ma ne ko ah ça va de bindal na may garab affaire yooyu ñu dem jël ko ma commencé jël ko di naan en attendant pour calmer douleur bopp bee tout ñu defalaat quelque temps ma ñu yaay est-ce que xam nga ni IRM la mu bindal mu ma luy loolu man jànguma yow ko yàmm ci tanaafe yooyu ma ni ko man de IRM bi mu ma bindal somme bi sax ma jaaxal mu ma ñaata lam ma ni ko yaay cent cinq mille affaire yooyu te man maa ngi nii yoroo xëyoo wàccoo et tout voilà mu ne ma ah yàlla baax na noonu ñu koy takkale takkale takkale voilà comme maa ngi woon ci sport bi maa ngi saluer euh, sama coach coach Modou Diaw Super Sport vraiment mu toog quelque temps gisuma ma ñëw ci booy yi parce que voilà fan yooyu dem ñëwatul te man su ñëwulee maa koy kii ci booy yi maa koy jàppale ci booy yi tout gisatuma mu woo ma téléphone ma wuyu affaire yooyu ma lan la ma ni ko man de dama feebar affaire yooyu noonu mu ñëw seeti ma. mais bu mu ñëwee ma fekk ma defar ba baax fuddanu sama tànk ak sama loxo malgré que ni voilà boobu fekk na vision beeg yëpp dem na mais maa ngi toog benn place mu ñëw dugg nuyoo ma ne ko kookal la non dafa taxawoon mais dafa mujj a toog yaakaarloo man ne man day na lii moom fii la toll ma ne ko ah yàlla rek fekk boobu yàlla rof na ma benn xolu muñ comme ni ñu doon wax sànq rek yàlla moom kenn lu ma àttanul xëy na boobu xam na ne àttan naa ko moo tax mu teg ma ko mu metti lool coach su moom tamit dem wax booy ne leen yéen de est-ce que xam ngeen seen tata bi daf foog ñu cotiser ko ndeysaan xale yi tamit ñu indi seen cent franc fi ki dërëm deux cent dajale bu mu nekk benn somme bi bu ne ma ah, ah lii lañu am comme somme d'argent noonu man tamit sama yaay dugg ci famille bi comme moom tamit liggéeyul samay frères les moyens taxu ko demee noonu ñu dajale dajale dajale ba dem def IRM résultat yi génn voilà ñun ma da nga am eh, tumeur bu nekk ci bopp bi moo empêché vision bi pour doo gis et tout voilà bu ma ko waxee tamit foofu sama àdduna gën a ci tukki parce que jour boobu maa ngi ak sama yaay ma xam ne nag kii li ma koy nëbb lépp lu ma bëggul woon moo xam tey dina ko xam mm-hmm. mais une ma génn rek man maa ngi ko fekk mu toog parce que médecin bàyyi ko woon mu dugg parce que xam na vi nu mu stressé woo su duggoon ànd ak man rek du baax man wax mané que da am tumeur ci pas encore sûr faut nga une deuxième fois voilà avec injection bi moy gëna à tax affaire bi leer ba paré mu ni ma da ngay euh, neurologie Faut nga au niveau de neurologie au niveau de neurologie vraiment Il ñu taxawuma assisté et tout vraiment vu que j'avais pas les moyens et tout déposé ko fa def sama première opération après voilà ma defee opération bi ma am espoir ne dinaa wér mais malheureusement bu ma ko defee ndekete dama dafa laajoon suivi ndekete soo ko defee ba pare lu ñuy dindilee après soo paree da nga ko war a dem joxe ah waa ANAPAD bi au niveau de l'université nga fayaat pour ñu def test bi pour nga am résultat bi nga yóbbulaat ko sa médecin man nag ma tegoon comme dindi nañ ko léegi wér ma toog de xaar wér nag ma toogaat six mois après. Mm-hmm. feebar bi affaire bi ñëwaat mu nekkaat beneen waat problème affaire yi daal tournir yi metti na metti na metti na metti dëgg fa yàlla metti na mais sant yàlla sant yàlla vraiment comme ñu ngi koy nettali rek fii yaa ngi toog di ko nettali rek li nga xam ne dunduñu ko rek tey sant mm-hmm. yàlla maa ngi nekk ci traitement yi bien vrai que perd naa samay vision mais alhamdulilah mm-hmm. malgré tout maa ngi continuer toog naa deux ans yoo xam ne dama toog mm-hmm. voilà jànguma may nek diggante hôpital kër ga après ni ci la reprendre ni comme virtuellement lay jang ci la dem def sama formation en informatique pour gëna wu defaat di réadapté mhm. wu mhm. ak voilà machine gitu et tout di jangat ba machallah allah validé naa sama première année ba ma ngi gitu deuxième année vraiment voilà mu nekkoon lu metti dal <laughs> di jégalu aussi gissani naa ngi joy. vraiment mais man mom gade <laughs> dama dem ba ci sa mère bi day toog di jooy di jooy di jooy sëpp na ma jooy tëdd naa mu sëpp ma di jooy ma nekk réanimation lépp mu toog di jooy ba voilà da ngay dem ba xam nga soo gisee kuy jooy sa des fois voilà mooy loolu dama naan ko delloo si sa xel ci yàlla rek xam ne yàlla moom moo namoon di xëy na ci ñun parce que jeune boo xam ne a suis née en 2000 am que vingt quatre ans nogal bi la voilà defuma donc sante yalla rek di remercier aussi bu 2000 la mhm. ni validé première année mhm. nga def informatique mhm. donc ñun ñi fi xam déjà ma les première année bi nga validé mais aussi laaj bi mu lay informatique bi bi xam informatique écran est ce que tay jii dou la affecté lu non du tout mais non informatique bi dama ni dama ko def formation waat parce que xam nga vu que taille yooyu UVS euh, université numérique Cheikh Hamidou Kan d'accord euh, tu sais que voilà dañ lay jox des kii euh, modem ak voilà ordinateur ci nga doon jàngee mhm. affaire bi dalma nak bu ma dalé ma toog deux ans jànguma après nak je me suis dit man li ma traversé pour egsi fii maire yaakaar ma non non li dal du problème mu bët mu may tere jàngiwaat ma demat inscrit waat ñew en sociologie d'accord voilà socio waaye saa yi ni sociologie laa nekk. Mm. d'accord mais est sa problème vision bi amul benn solution boo xamante ne médecin yi wax nañ la ko par exemple nga defaat tey opération bi et tout wala dañ ne la carrément dootoo gisati. non ñoom waxuñu ma a carrément ni dootuma gisaat parce que GLM mm-hmm. xam nga rek li naan <laughs> yàlla moom mooy dogal. Mm-hmm. ñoom def na lu ñu mën à leur niveau. Mm-hmm. voilà peut-être lu ñu may gën di nag di proposer naan balaa affaire bi di gën a avancé avancé avancé nga dem Europe. voilà comme lu ci mal ni France mën nga fa dem eggale sa jàng en même temps ngay fajuwaale ñoom xam ga nouvelle technologie foofu la gën a domaine médecine bi moom foofu la mo kii uh-huh, fa la gën a évoluer mais daal am nañ yàqin ni daal dinañ wér daal incha allah am nañ yaakaar mm-hmm. euh, loolu amaana sax moom moo waral Mm-hmm. moom toogaayam fii nii tey fi tey ni mm-hmm. parce que yàlla man na dogal man lu ma gëm la mm-hmm. ba moom mu retrouver waat vision te incha allah fi lañ ko waxee yàlla dina dogal loolu mooy comme li mu wax rek du yaafu sëm moom moo tax suñu borom teg ko